aouzubillah bismillah inna waliyallah askanu Sénégal mbokki soxna yi yow yaay rakk mag bu jigéen ñoo ngi jëme ci kenn ku nekk ci yéen yéene ju rafet ëmb ko ci ñaan gi ñu yonent ba defal nuyoo alayhi salaatu te mooy na yal na jàmm nekk ci yéen ak yërmande borom bi tabaraka wa ak barkeem seen mbokki jigéen yu fekk baax ci réew mi di ay way gëm yu tànn dund seen diine di ay séyaan yu taamu am kilifa waaye doon ñu jaayante ak seen boroom ci seen njaboot ñoo jàkkarloo ak yéen ana lu ko waral xanaa lenn li nga xam ne seyaan jënd na ko àdduna ak lu laaw jënd ko ndomba tànk jënd ko lamb diis moom la jonkon di ko xaar ci moom la wékk yaakaar mbokk yi loolu mooy lan loolu mooy sunu njaboot àdduna moo tukki ci sunuy doom ak sunu réew moo sabab ñu jóg yëkkati kàddu fii ñu toog jàkkaarloo ak yéen njaxare daj na kapp suñu xol yi gëlëm nañu tiit nañu te am nañu mbetteel mu rëy ci suñu réew ak ci suñu doom ñaari laaj rakkati ñoo toj suñu bopp yi lii num ñu mën a dale nu ñu def ba agsi fii suñu deret giir nañu la taasukat ba waxoon dab nañu caq ba samaam solo simmi jox sa ndey te ñu solal la ko caq ba ani caq ba rus nañu kon tey yey na moos ñu taxaw dënniir lu nag niiruwaat xoolaat suñu bopp ak bëti xel bët nag bu ko xel yónnee xool bi dina ñaw li ma dëddu li ma dëgmal li ma gëm li ma weddi li neen yiir ba nar ko far te mooy lépp ak lii riir ame jamono fëkk xel yi talu dara ñu dëppoo bëti njaccaar yi te sóobu am njàngat mbokk yi askan bi daan nañu ko lëlal waaye bi yoon dañoo dogu ci boole ci lël bi askan wi ci boppam jox ko kàddu te déglu ko nde nag loo xam-xam dem ba gën laa xam boppam waaye itam lël bi dañoo dogu ci boole ci ki moom ki moom lël bi te mooy yàlla ndekat ba ñu ko beddee ba tey seppi loxoom ci li doxal réew mi fu ne lañu patamtiku waaye lépp a ngi ne kàkk te gis nañu ne bu pexe jeexee takk nag waa kër yàlla lañuy woo ñooy mu indi saafara firi njàqare yi ci kàttanu yàlla ak mbaaxam xellu nag bokk na ci xam fa nga war a njëkk xam fa ngay mujje nga njëkke fa mbokk yi lëlu ndey askan bi ci biir sàmm yi keno yaa ngi noonu moo tax réere wu ñu mbir benn yoon ne sàllaaw nooy doon kumba amul ndeyu lël yi du nu bett du nu jaaxal diine ak dëgg ñoo njëkk jirim ci Sénégal ñoo fi gën a tumurank waaye xam nañu ne ñoo toggoo xàq ju ci kanam yàlla ak ci kanam suñu njaboot te taarix dina àtte kon ñoo war a jóg te yaxiinu nañu ne ñun ñoo gën a yey ci am taxawaay ak ci lël ndax bëtu yaay bu amul gënale ak xolu njureel bu deñ ci parparloo ak yéene ju ëmb àdduna ak àllaaxira ci ñun rekk la nekk ñoo warloo istihaar mooy initiative bu rafet moo tax bu ñu doon lal ay basang ci mbedd mi di xiif ak a tawte incha allahu dinañu li te wekk yaakaar ci ki nga xam ne càkkutéef yépp daju nañu ci bu ko soobee tabaraka wa te doy na te doyloo nañu ko loolu sax moo sabab ñu ubbeekoo julli ak ñaan ak tuubal suñu borom mbokk yi askan wi ñu mujj doon mënatul ñàkk mu taxaw daniir lu boppam càmbar boppam ak nekkinam kon dinañ gis ne doomu senegaal ku gëj ci boppam la te bu ñu ko fàttalee dëgg dëgg ki mu doon dana ko namm lool ku jamono booleeg boppam la ku xewit ak xarala mujj boole ak boroomam ba won ko gannaaw mu bàyyi ko ci sële bi yoon mbaa sax mujj ñu waru ci fi ak ndoom aadama tànqe maanaa ñun ñooy kan li ñu doom ku ñu ko def luy suñu wàccuwaay nun ñu waajale fu ñuy mujj lii ñu tënk moom lañu dugal ci jàngat bu ñu duppee le principe de la prééminence humaine benn la ci ponki lël bi dana jeqi fu sori ci jiitu doom aadama ak jikko yu rafet mbokk yi dafa mel ni nag ni àdduna tëdde tey dootul jaadu nga bëgg a natt taxawaayu état wala càmbar doxinu benn askan lu dul méngale nga ko ak fa askan woowu toll ci moom boppam ak sañal boppam loolu lañu tuddee souveraineté mooy gore ci sa bopp sa boo noppee ci boobu fànn dinga càmbar askan woowu ci bennoo gi ko faste ak yeneen nawle réewam mooy li ñuy wax mbootaayu xeet yi mooy Nations Unies li tax mooy dafa dem ba lu bari ci li ñuy xaatim ci bennoo googu dem ba tiim ndeyu charte réew yi maanaam suñuy constitution mbootaayu xeet yooyu dafa taxaw ci nose kaw suuf ba dënd bi mujj doon menn penc di dox ci xalaat ak tërëyin tëralin yu maase ci mboolem xeet yi loolu mooy mondialisation suñu réew tàbbi ci lii mbokk yi dinañu dëppoo bëti njàccaar yi niite ko diine keroog lañuy xam dëgg-dëgg sax taxawaayu soldaari valeur yi sàmm ji koy doon ndax fii la lël bi laale ak suñu ko combat dinañu amal mbokk yi njàngat mu xóot ak ba tey ñu seen xam-xam màcc ci wàll wi jëme ko ci taxawaayu nguur maanaam état ci institution yi mu samp ak dogal yi muy jël muy doxal pénc mi di àtte suñu dund yii di saytu suñu alal yii di saytu doxalinu nguur te faaw xam ci jëmm ak ci jikko ñan ñooy doom aadama yi ŋànk suñu ëllëgu réew mii ak fuñ ñu jëme waaye naka lañu wëlbatikoo ci kóolute gi leen askan bi joxoon te yaakaar leen daañu jàngat laïcité nu mu demee ak diine boroom xam-xam ba dafa wax ne wa man tawassala bi waasilin wasal wa man tawassala bi aksihi fasal mbokk yi xeet wu àgg du ko ëppale ressource naturel du ko ëppale gën a rafetle ay tour ak ay monument du sax ki raw ci xam-xam ak xarala dont bokk na ci nag waaye war nañoo xam lu tax suñu maam yi bi nit ku weex ne bërët song xam-xam ak xarala moom mu njëkkante jikko ak pas-pasu diine jikko mbokk yi mooy tax a dama wax ne la civilisation nekk que l'expression de la sagesse humaine dans sa forme la plus achevée ba tey mbokk yi ci loolu ndey askan bi dinañu càmbar dëgg-dëgg jubluwaayu média yi ñu am ci wàllu xibaar ak information ñoom dey seen dëgg-dëggi warteef moo doonoon gunge yëkkatiku askan wi ci tabax senegale bu mat li mu doon ak liñ koy doyee ndax journaliste matal nañu li ñu leen déyale woon ci askan wi te jagleel leen ministère lëm daañu càmbar bu baax njàng mi ak njàngale mi ba xam nooy jàngale jàmbur bëgg cee gis sa bopp ak lu war a tax ndongoli taal daara ji dama yor ay xale di leen jàngal di leen yar ci diine di leen waar may xalaat bés bu ma xëyoon xale yooyu nga xam ne mujj nu doon njàngale mi ma def ci ñoom su ma xëyoon woo leen ba ñu ñëw ma ne leen li ma leen jàngaloon li ma leen waxoon ci diine waar yi ma leen doon def ci daara ji lépp ay caaxaan la dara du ci dëgg moo kon ndax bu xale yi taalee daara ji dinaa ci war a am lu ma bett lu tax ñu tere élite ci système éducatif bi ba xam-xam góor mujjatuñu am tànn ci suñu ëllëgu doom lu dul làmb ji pecc mi mbaa boo guddee mébét géej gi di sa bàmmeel dinañu càmbar suñu justice cig màndu ndax askan ate bu màndu mooy ñoŋal ngorom te kilifa mbaa àttekat bu jeng dana ràng aw askanam buumu njaam ndax da koy damm ci tegoo lu dul yoon te bëgg jàmm bu taxee mu nangu ko tàbbi na ci njaam te yëgu ko ngor desu ko jënde jàmm dinañu dëppoo bëti xel yi teg xool bu war ma lalal ci diine ñoñ diine ndax li ëpp ci suñu coono dara waralu ko lu dul far ci diine ak dogu ci mu sax ci njaboot gi àdduna tàkk na wëruñu fii terorisme fii guerre civile neew yi di saxe ca mbedd ya fii dënn fii suuf yëngu fa fii mu taw taw a géej ga dagg fekki leen Sénégal ne fanax ne fayax macha allah nekk ilo de paix ci àdduna bu ne jëppet ndax xam nañ lan moo ñu ko may waaye mbaa jamono cuubul suñu nitu diine lël bi dina ci gëstu li ñuy mujje te mooy tëj lël bi mooy sunu bopp yow yaay ndeyu askan wi société ñaari entité rekk la yaay ab doomam ñoo njaal beenal te lépp ci ñun lay dellu yaay dëgg dafay fasantiku dafay multidimensionnel saytu kow suuf ak biir suuf yaay day gëm yaay day fas day jaayante day jànkonte te nag yaay day ñàkk jot te dërëm du tax bu àdduna wootee autonomisation yaay bul ko wuyu électron libre mënta jur jàmm ci néegu sëy te ki la nebul am kilifa dalaa bëgg a yilif rekk ñun ku ñu baaxle la ko tax a baax am kilifaa ko ko may ñii di wax waxi parité ak waxi genre bëgg ñu gental suñu néeg yi ndax leadership na ngeen leen xool bëtu yërmande ndax koo ci sëmbeelandool juróom benn fukki at di nga xam ne sëy ba mu jotee na mu ware ak njaboot gu barkeel lii rekk mooy alal te koo ci tollool ci yii at loo ko jaaye sëy bu dal ak doom ju baax mu jënd ko ku la ci wax dëkk wàññi rekk la bëgg lii tënk la ci lël bi dinañu ko càmbar yaatal ko sëyaan jël kàddu wax ak doomam manifestants FDS nervi pouvoir opposition ñi ci kaso yi ñooy seen yaay te yéen rek lañu am ci yéen ñépp lañu séddale suñuy rangoon te yéen ñépp bokk suñu yitte ak suñu taxawaay boo leen jàmmoo ñu am jàmm waaye ku ci jàmm moroomam xamal ne ñun nga jot te yaay nga rey lii dee xajootuñu ko doy na yal na yàlla jàmmal réew mi jàmmal suñuy doom ak suñu askan ku dem ñoo ko ñàkk dañu koy jaalante waaye na fi yam assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala